Elhadj Ousseynou Ndiaye dal leen jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne nag moom la xëyandoo teel a nangoo neex yéenekaay bi di xamale kay jamono kay juboo gi nga xam ne daal amoon na ci Masaalikul Jinaan waaw te Serigne Mountakha Bassirou Mbacké daal di jël na ko loolee da cay ànd waaw ba ci juboo gi sax ànd na ci ak moom Karim Meïssa Wade daan ci ànd Les Échos yéen kay di ñu xamal ne Khalifa Babacar Sall kay moom kay jot naa daje ak ñi nga xam ne daal ñoo ko déggal ak jigéen ñi nga xam ne ñoo koy jàppale yéen kay moom Khalifa Babacar Sall moom xaaf mi nga xam ne kay moo nekkoon maire bu Dakar kàddu yi nga xam ne daal yëkkati ko moom Khalifa Babacar Sall di leen xam ne waaw seen ngëm-ngëm gii nga xam ne daal am ngeen ko bu nangu kenn yàqal leen ko waaw ngëm-ngëm Les xamal ne kay moom Khalifa Ababacar Sall ca ca jamono jooju Vox Populi di xamal ne lépp loo xam ne nag jëm na ci parti Abdoulaye Wade di ñu xamal ne maître Abdoulaye Wade mi nga xam ne daal waaw moom moom fépp yor lépp yéenekaay bi di ñu xamal ne moom Abdoulaye Wade daan nga xam ne nag moo di PDS waaw di yéenekaay bi di xamal ne Omar Sarr kay jamono ji gi koy gome faxas na ko ba mu set yéenekaay bi di xamal ne ñoom suqali sob dafa mel ni Abdoulaye Wade joojee ki doom yéen kaay bi di critique di xamal ne maanaam daal suba kay la ubbi école bi waaw waaw ndax nag école boobee bu ñu ko ubbi tey jàng tey dina am kay bu yeboo ñu dallu ci waaw ubbi tey jàng tey du am waaye danañu ubbi yu metti daal di am ci réewum Sénégal ndax kay kuréelu a yu metti yoo xam ne daanaka dañuy ubbi rek nekk waaw jàngalekat yi di xam ne ne maanaam daal loolee bu ngeen gisee li ko waral moo di déggoo yi nga jotoon nañ ko xaate ak nguuru Sénégal waaw maanaam ci atum 2014 ba léegi li nga xam ne daal waxoonte nañ ko bëri na ci loo xam ne ba léegi ay saafara amu ci waaw ñuy wax nag ñu naan Cheikh Kanté mii daal moom la ñuy def médiateur waaw ngir mu dox lépp loo xam ne jëm na ci wàllu jàmm ci diggante jàngalekat yi nguuru Sénégal maanaam dox bébé munta sotti laa la ndax ki nga xam ne nag moo di Cheikh jamono ji la ñu ko dénk kay daf ko maîtriser wul nit jox lu mu man waaye bu fekkee ne dañ ko jox ne a tar dañ a ne jamono ji ubbi teg école gu matti la naram a dee maanaam ñi nga ñooy jàng ndax ubbi teg école goo xam ne dañuy ubbi rek grève ba tàmbali ca jamono jojee l'observateur di ñu xamal ne waa Marème Faye Sall mii kay loo xam ne dak jëm na ci kaaraangeem jamono ne ak lu mën di xew moom Marème Faye Sall kay yi nga xam ne dak da koy faral di def te génn yooyu ne génn bu simple lay doon yéenekaay bi di ñu xamal ne waaye nag amoon na ci bés nag gannaaw nag bi ñuy ne moom Marème Faye Sall kay gannaaw ba mu génnee di def li nga xam ne ay jëndam waaw yéenekaay bi di ñu xamal ne am ndiiraan ñoo ko toppoon Marème Faye Sall moomee di ko wax ay jafe-jafe yoo xam ne nag moom la ñuy jànkonteel waaye tamit di sàkku ci moom ndimbal yéen kaay bi di xamale ba ki nga xam ne nag moo nekkoon ak moom yoru kaaraange daa mujjee woo ñi nga xam ne nag ñoo di police ngir ñu daal di indik daal yéen kaay bi di xamale la nga xam ne daal mooy yuuxoo yi nga xam ne daal yuuxoo nañ ko Marième Faye Sall ca biti réew loolee Marième Faye Sall na nga xam ne daal noonu la libéré moom kay jamono yi ki xam ne kay moo di Macky Sall nga xam ne moo jiite réewum Sénégal Macky Sall loo xam ne na ci wàllum suuf Macky Sall daal sàkkuteef yi nga xam ne daal dañu koy bind ne daal la ma cay jot daal ci wàllu suuf lay waaw maanaam daal mbir la moo xam ne itam bu ñu ko moytuwul mën naa taalum réew loolee tax na ña sàkku ci jëwriñ ji nga xam ne moom la dénk lépp loo xam ne jëm na ci lu aju ci loolee ngir mu ànd ci ay saafara ngir daal mën a amandi fii moom boo daal dafa am yéene kaay bi directeur fa du ñu xamal ne Abdoulaye Diouf daal lépp loo xam ne jëm na ci garab yi nga xam ne dañu koy dagg ci àll bi ñu daal di koy bàyyi wala sax ñu matuwaay danañ ko jël ngir daggum garab moomee nga xam ne dañu koy amal ci àll bi ci lu jaarut yoon ngir ñu daal di koy daggal ak lu mën di xew daal daggum garab ak déet waaye daal ñun daal màggalu Tuubaa na ñu fexe ba nañu am matt rek mat rek na mat mi ñëw de matt daal na ñëw xaw ma a gëm garab mu jaarut yoon nag kenn àndu ci waaye màggalu Tuubaa gii nañu fexe ba na matt mi ñëw de matt daal na ñëw mat na ñëw mbaa rek fuñ ko mën a jëlee ñu wuti ko ndax màggalu Tuubaa nag dañuy teral gan yi matt mi day ñëw de